yoon mhm. jeexal na jàng voilà mu ngi noonu dañuy ñëw ci leneen mais <laughs> affaire Prodac bi moom dinaa la wax après sa benn xarit boo xam ne fa la ko fekk mu ñuy seetaan xaw ma xaritu cuun ah waaw. <laughs> kalaw kalaw wala ma fekk de bi kew Prodac bi di yow mu ngi biir Prodac. ah kon kay sa xarit la de. kii ah. sa xarit la de mu ngi ci bi. commentaire na na siña na siñaalew. maa de yàlla xam est-ce que commentaire na. est-ce que commentaire awa jaxate la a jaaxal. na di turlee ko bi fa maami naa di nekk. dañuy ñëw ci ma xam ko. ci li nga xamante ne nii moo di euh, beneen mbir la euh, mu di rek ba tey waaye ci euh, mbirum yoon la jëm ci homme d'affaires bi nga xamante ne ni moom moo di Doro Gueye ginnaaw ci weer yi ñu génn am na benn séjour boo xam ne defoon na ko ci prison bi waaye ñuy xamle ba tey rek ne pour non respect des engagements ay immeuble yoo xamante ne ni moom moo ko moom ak soxnaam dañu koy saisir cum waaw loolu kii la am tudd sax kan la sax. Hmm? awa ne awa fan laa fanaan maa ngi kër laa fanaan euh, mooy kii. Doro Gueye Doro xam nga Doro Gueye waaw Doro Gueye nag il faut ñu xam aussi. ñu hmm. def discernement jotewul ak benn yoon état lu dëgg. Hmm. voilà loolu jotewul ak état ki mu joteel daal mooy benn benn euh, institution financière daa demoon lépp foofu. lu toll ci cent million waaw mu dem leb ci toll ci 100 million mu mettre en garantie xam nga booy lepp banque wala ngay leb institution financière dina la lan dinañ la ne lan mooy sa garantie. ni mhm. garantie yooyu ngay indi lu tax ñu koy soxla c'est au cas li nga wax ak ñoom ne dinaa leen fay diir bi ñëpp ñu mës a dem prêt bancaire montant yi xam nañ loolu dinaa leen fay ci période bii au cas où fayuma leen mën ngeen ko saisir. léegi nag boo leen ko saisiree léegi su dee fay ma leen ngeen dem fay ko ngeen jëlee ko fay seen jël seen xaalis loolu la moo tax loolu mooy yëfu garantie. Mhm. léegi nag moom loolu moo ko dal loolu jotewul ak dara un milliard bi ñuy wax ne mbirum suuf jotewul ak dara de. Mhm. jotewul ak dara aussi mbirum état mbirum institution financière moom moo ko lebal euh, échéance bi jeex fayul ñu dem yoon. Mhm. yoon nag léegi dina décider. mais instant bi étape bi mooy l'intention c'est de saisir benn immeuble am ak magasin ak appartement rez-de-chaussée léegi nag yooyu su boobaa huissier bi muy ñëw ak koo xamante ni dafa am compétence ci wàllu immobilier mu xayma magasin bi ñaata lay jar mhm. bu dee douze millions lay jar mu ne justice douze millions lay jar bu dee appartement bi dégg naa cent vingt et un millions comme ça ñi bëgg jënd cité kër góor gi la mën ngeen a préparé. en tout cas boo yóbbee vingt deux millions dinañ la delloo bu dee parce que loolu lañu def évaluation bi. Euh, magasin bi mën ngeen préparer aussi soo yoree yóbbee treize millions dinañ la delloo parce que douze millions lay jar donc boo leen bëggee jënd cité kër góor gi la ko ñu Sonko la d'ailleurs ak Bougane <laughs> dëgg donc loolu mooy li nga xamante ne mooy euh, li am. Mhm. léegi nag euh, Doro Gueye moom mu ngi mu ngi bitim waaye nag dañ ne. waaye ñu doon wax ne nekk waaw dañ mooy lu mu bokk ak soxnaam mu sox konam kër gi kër yi am na ci lu mu ci bokk ak soxnaam mais loolu malgré ça daf ko yóbbu woon garanti ko léegi nag soo yóbbee garanti date bi jot fayloo ok dañ naan ah fayloo de léegi lu ñuy def ñun lu ñu diggante woon mooy sa boo fayul ñu ñu def wax ko yoon. yoon huissier de justice def constat après ce constat ñu procéder à ce qu'on appelle à la vente aux enchères ou bien à la vente de de de l'immeuble ou des biens comme ni ñu ko defee woon Serigne Bougane avec son immeuble là à la cité Keur Gorgui d'accord léegi yoon nag su boobaa mooy décider euh, loolu lañuy tuddee adjudication su ma jubalee su décider mu ne la d'accord yéen mën ngeen procéder à la su suñu hmm. jaayee. ngeen jël seen xaalis nit ki ñëw def formalité yi saa moo ko jënd voilà seen maison a qui appartenait à Doro Gueye maintenant mm. saa moo ko jënd après jugement nangam date bi et cetera mu jeex léegi nag su boobaa Doro Gueye sa kër loolu nekkatul sa kër mais nag diggante bi mun na bu amee xaalis si diggante bi mun na fay mais boo fayul nag ah boo fayul yoon bu waxee dañ koy jaay ngay jaay suñ ko jaay xanaa nga jëndaat ko wala nga yónni saa sa xarit mu jëndaat ko te loolu si boobaa dans tous les cas dañ ciy perte. moo fay ñoo yem. voilà te mais s'il n'agit de perdre moom ak jabaram yëpp saawala fa cuur mi ngi koy wax euh, nekkul li nga xamante ne ni. loolu tamit yéeme perte nguur rek lépp daanu. du ma mag état voilà ci loolu laa bëgg a ñëw mais mu mel ni euh, une fois que ne yenn yi euh, commencé tegu sa kaw dafay mel ni ñeneen ñi nga feexaloon aussi ci la ñuy. gën a mën a ñëw réagir. wala fi ñu wéeru woon moo amatul. mais cuun dinaa la jubbant de. Hmm. immobilier liñ koy jaayee. bu fekkee yaa ko moomoon ñu si ko soo làqatoo jëndaat ko doo perte da ngay gañe de. da ngay hmm. Hmm. <laughs> banque yi xam nga Sénégal lañ fi war a soppi daa daa bari de. da yor sa immeuble. kii coûte un milliard. leb banque ñi la lebal sax dañ naan ciwee nga bañ man a fay. bañ saisir ko nga yaakaar immeuble un milliard trois cent lañ koy jaayee. Hmm. cinq cent millions sax boobu <laughs> lañ koy jaayee léegi loo feree un milliard ñu jaayee ko cinq cent millions boo laa xaw doo jënd ko da ngaa gañe banque bi bu jëlee fay bien moo gën a arrangé. maanaam bu fekkee ne man ngaa làqatu ba jënd ko. Hmm. maanaam laa wax de mais nag bu ñoom tamit jubadi gi leen jàpp it buñ ko dee jënd dañuy fexe ba seen xarit jënd ko moo tax gis nga état daa war a. dañu war a teg prête voilà mhm. dañu war a teg non loolu la maam da gis banquier boo xam ne dafay ñëw lebal cuun teg sa alal bët ne ciwee échéance bi jot nga bañ a fay bañu teg loxo kër gi kër gi buñ koy jaayee ñoom dañ koy xalab wanteer banque Sénégal du juum maanaam moom du juum du ñàkk moo tax banque ak assurance Sénégal pour ñu daanu problème la parce que amul benn risque léegi boo ñëwee jël kër jàmbur mu doon jar fukk nga ñëw saisir ko di ko jaay da ngay fexe boo ko mënee jaay ñeent jaay ko am say xarit yoo xam ne buñ koy jaay sax ñenn ñi duñ ko yëg ñoom ñoo koy jënd buñ demaatee am luñ def ak am na homme politique boo xam ne ancien banquier la looloo ko may xaalis juba di doon ko jàpp tey moo gën a dàq joxe leçon de morale bon ma ñëw ci <laughs> kii nu mu tëddee ci Dora Gueye bi muy dem natt na lim am Sénégal ba xam ne couvrirul ay borom mu dem. foofu nag bu dee lu mu bokkoon ak jabaram ba pare xëy takk ñetteel nga tamit loolu mooy yabaate quoi am alal bokkook sa aawo ba noppi mais foofu tamit prénom da ngay gis ne day daal di am est-ce que sa aawo tamit da koy jox gis naa benn député bu gën a kii ak Sonko am na benn immeuble bu jàkkaarlook Atepa Goudiaby mhm. tobogan bi nekk ci Atepa maanaam immeuble bi jàkkaarlook Atepa benn député bu nekk kii moo ko moom. ci angle bi ci angle bi turu jabarama ci ne. boobu résidence kii la présidentielle la. voilà turu jabaram moo ci ne. député bu nekk fan. bu nekk ci en. foofu lañ doon sànni lacrymogène Sonko yi ci angle bi. ah bon. ay man de nooy naa fi ba tiit. ñu ngi nekkaat di defaraat ni turu jabaram moo ci nekk <laughs> jabaram ji nga xam ne magum communicateur traditionnel bu kii mooy baayam indice yi doy na nag fa laa yem eh, nu mu tuddati. parquet door ak Dora Gueye. xaaral ma ko ci am na xam loolu. xam yàlla dafa def ci lanceur d'alerte yi sax. yàlla dafa def loi bee ñëwagul. <laughs> yow waaw loi bi gënalul de moom. liñ <laughs> def cuun xam nga war a xëy ñu di la yóbbu maam du mujj fenn. mais niñ def cuun yendal la fa ba ngoon eh, li ñuy wax luñ teg baaraam la mais temps bi ñuy jël ci yow. toog loola fële ak yooyu nga yenn fa di gars yi dinaa la loolu laa amul jotam moo tax rek. Hmm. may may moytu mais indi si ma joxe c'est déjà hmm. assez clair même. loi bi génnee nga génnee dossier. waaw amul benn problème non loolu kay balaa loi bi génn li Sonko ko wax kay dégg nga ko. <laughs> Sonko mu doy waar. wallaahi justice Sénégal bu ñu jëlee dossier yàppoor yëpp yu Bassirou wax ne nañ ko publier bu ñu ko waree xool xoolal benn juge di dem vacance. dëgg non non juge Sénégal. te chaque jour dañuy am procès non dañoo war a jëlaat yeneen juge dañ ci war a def paquet cinq cent et quelques magistrats dafa dafa tuuti. Mhm. war nañu yegg mille. parce que li nar a am fii dañ ko war a traité loolu boo Sénégal jukkee te ko ci yoon loolu yokkute la ba pare réew gis nga boo garanté ba nga xam ne nit ñëpp xam nañ ne boo tooñee nit mbaxana doy doon benn amul mhm. par parloo léegi ñëpp riis faatu mhm. faatu li ñu am Sénégal mën nañoo dundal léegi nag ma ñëw ci dooro xam nga Doro gars yi boo ko analyser ci dooro benn homme d'affaires nii rek maanaam li muy diwoo xeeñu ko yorut lu bari hmm. prête non la prête non nag bu la gars yi di abal seen tur dañ lay defar da ngay jékki-jékki doon dégg benn waay boo xoolee jabar yi muy takk ay vedette rek la ñuy doon commençant par Clara ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ci toppaat noonu maanaam loolu yëpp pour ñu xam la coow léegi bi ñu la xamee nga tàmbali di fréquenter yenn centres yi koo kookoy PDG loo mayee yaa ko moom wala yaa ko moom man sax nit kay boo xasee waaye déggul wolof de loo mayee yaa ko moom boo xasee mayee kay ñàkk nga. yaa njool sa kër maam. waaw ah, Fuuta Tooro sa kër maam ak yooyu mais yooyu yëpp gars yi dañ lay def benn nit mais au lieu nga yem fi nga war a yem. Mm. léegi yow da ngay demaat di business aale. business boobu ngay def nag parce que nit ñi sa tur lañ dégg ñoom tur bi da leen yóbbaale mhm. bañ séq ak yow loo xam ne buñ ko tegoon ci yoon doo yóbbu seen xaalis xam nga lekk xaalisam ni bëggee ko jàpp rek mais benn waay bu mel ni Dora Bay bu taxawee ne la am naa temps de terrain war nga ci tey koo jékki-jékki rek dégg ko ci nii wolof dana alal bu màgg a gaawee judd ba mën naa bañ a rafet bariwul lu muy am mhm. léegi nag boo xoolee Doro géey ay genre Mamour jàlloo ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen comme Mamour jàlloo fees moom laa lay wax mais ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañuy soxla ay Doro Gueye gàcc leen seen alal. Hmm. ñu nekk ci kaw di doxal. am na benn patron de presse bu rëy làmmiñ boo xam ne ci ancien régime bi moom it noonu lañ ko def mais am na ci ñoo xam daa pare toog ci seen alal moo tax peut-être non tamit wóorul. Hmm. am na genre baadoola yoo koy yoo koy seqal dañuy pare toog ci sa alal. am na ay dignitaire ancien régime ci PDS laay wax. Mhm. ñoo xam ne am na waajoo xam ne daanaka ci benn entreprise bu mag la nekkoon presse ba mu yàgg dem bitim réew jékki-jékki rek doon milliardaire yoreel ay nit xaalis yu bari nag toog. Mhm. fi mu toll moo gën a rëy làmmiñ di xas premier ministre rek ak gouvernement bi te moom it ab dóor a gay la woon rek léegi nag affaire bu yàggee da ngay dem ba nit ñi dañuy fàtte mais fàtte xaju fi. gis nga bu lanceur d'alerte yi génnee faatu dinaa la tegal dossier yoo xam ne fii. Hmm. ça date de ay 2004 jàpp 2006.